waxee mooy nit yoo xamante ni dañuy noppi seen wax bariwul nit lañ yoo xam ne aussi euh, dañuy nekk ay nit yu doo yoo xam ne dañu bari xarit bari ñu wax bu ñu wax aussi da gis seen wax dafay yéex seen jëf dafay yéex donc dañuy nekk ay nit yoo xam ne de nature ay nit yu duw lañu ay nit yu calme lañu muy góor muy jigéen kon type 5 dañu bokk ci nit ñooñu. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين chers internautes maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen xanaa rek ñëw ak yéen ci seen série Enneagramme ngir rek fas yéene àggale série bi ngir indil leen dootu personnalités yi des ci suñu neuf types Enneagramme yi tey nag ñu indi leen li nga xamante ni mooy type 5 bi euh, balaa ñuy dugg suñu vif du sujet nag ñu ngeen daal di abonné partager vidéo bi parce que dina nekk loo xamante ni dina amal njëriñ lu bëri ndax euh, nit dem ba xam boppam xam moom mooy kan loolu kat euh, force la te tamit dafay may nit confiance waaye dina tax nit ki daal di mën a dund dund gu ànd ak jàmm ci kaw suuf. kon bu leen ko négliger partagé leen ko ngeen abonné di emee tamit vidéo yi. kon suñu NEA type 5 comme niñ ko xamee daal di nekk euh, ki nga xamante ni mu ngi bokk ci type rationnel yi. kon bu ñu waxee type rationnel comme ni ngeen ko gisee woon dañu séparé woon énéagramme bi divisé ko par trois centres centre mental centre instinctif ak centre rationnel donc énéa type 5 bokk ci centre mental ñu ko wax centre rationnel waaye nag euh, son euh, li nga xamante ni mooy euh, rationalité am c'est tourné vers l'extérieur vers les les objets kon ñu gis ni 5 bi le fait que muy centre li nga xamante ni mooy ay pensée ak rationalisation vers les objets wala li nga xamante ni mooy jëm ci jumtuwaay yi wala ci àddina bi wala li muy gis wala li ko wër ndax bëggul euh, sentir li nga xamante ni mooy ay yëg-yëgam yi nga xam ne moo nekk ci biiram. en général euh, type 5 yi dañuy nekk ay nit yu réservé wu ay introverti la ñuy doon waa type 5 yëpp ay introverti lañu introverti nag bu ñu ko waxee mooy nit yoo xamante ni dañuy noppi seen wax bariwul. nit lañu yoo xam ne aussi euh, dañuy nekk ay nit yu yoo xam ne dañu bëri xarit bëri wu ñu wax bu ñu wax aussi da gis seen wax dafay yéex seen jëf dafay yéex donc dañuy nekk ay nit yoo xam ne de nature ay nit yu duu lañu ay nit yu calme lañu muy góor muy jigéen kon type 5 dañu bokk ci nit ñooñu kon ennéagramme am na ay introverti mais type cinq moom amul maanaam extraverti mënu nekk type 5. ambivert tamit mënul nekk type 5 type 5 introverti lay doon à 200 pour cent ñu xam ne aussi ay nit la ñuy am euh, niveau maanaam ay nit la ñu am xam-xam d'habitude ci lépp li nga xam ne rek moo jëm ci wàllum euh, gëstu ak bëgg a découvrir ak am kumpa dañ kumpa ci bëgg a xam ak bëgg jàng lépp li nga xam ne rek moo leen wër wala leen di jaaxal ci seen àddina kon en général type cinq bi su amee loo xamante ni daf ko intéressé def ciy concentré wu consacré ko taawam jox ko lépp li nga xam ne moom la laaj te dafa ci nekk d'habitude koo xam ne daf ciy exceller du ko def pour ut tour wala def ko pour siiw comme battant bi numéro trois bi ni ñu ko gisee woon nga xam ne moom li muy def pour succès la ak euh, bëgg a siiw au contraire type 5 li muy def ak euh, lépp li nga xam ne mu ngi ciy exceller rek ci li ko intéressé ndax ay nit yu am xam-xam lañu waaye seen xam-xam dafay localiser wu dans le sens que tey Euh, du nekk xam-xam boo xam day cuucuy capp fee capp déedéet dañuy centré wu ci benn mbir parce que ñoom dañu bëgg topp action ba mu sës bëgguñu xam en demi mesure dañuy bëgg a xam jusqu'au dernier détail kon cinq bi le fait que tey ñoom ñu bokk ci santé bi mooy tax dañuy am anxiété bu chronique boo xam dafa leen di topp seen giiru dund kon mën nañ ne cinq bi nit bu anxieux lay doon ñu xam ne aussi cinq bi nit la buy autonome maanaam nit la boo xam ne du soxla dépendre ci kenn surtout nag li nga xamante ni tey mooy euh, diversité bi nga xam ne moo ñu wër maanaam uute gu bëri ak par euh, parparloo gu bëri moom day am ay matériels yu suffisant am ay jumtuwaay yu mot ngir mën a euh, bañ a bokk ci benn clan ndax dafa am li nga xamante ni tey mooy doyloo boppam ndax tellement que dafa liggéey li nga xam ne mooy monde am univers am ak li nga xam ne mooy li ko wër ba nga xam ne mën na dund moom kese te mën nañ na rek buñ ko sañee wax mooy soxlawul présence su kenn ci dundam ndax du ko déranger au contraire solitude am mooy lu ko gënal ndax euh, mën na nekk ak ay nit mais bu ci yàggee tuuti rek daf koy commencé sonal kon li muy nekk ak ay nit loolu lay soxlaalu la plupart du temps nekk moom kase kon ci noonu mën nañu gis ne kon 5 euh, bi li nga xam ne moo koy stressé di ko angoissé di ko maanaam di ko indil problème mooy nekk ci mbooloo constant nekk ci nit ñu bëri constant ndax moom nekkul nit bu bëgg dem xew buggul ay mbumbaay ay xumbaay bëggul nekk ci ay nit ah même bu dee tey bu ko defee rek mooy elle se sent obligée wala il se sent obligé tey par exemple ay xewu famille et bu ca nekkee rek day nekk loo xamante ne bu ca demee day nekk loo xam ne euh, dem na ca malgré waaye buñ ko tànnaloon choix wam moom mu toog ci coin am bañ dem moo koy gënal. Euh, tey cinq bi nekk koo xam ne tey même buy dund en famille këru famille comme kër yu mag ña xam ne noonu la ñuy gis suñu dëkk Sénégal. day nekk koo xam ne mooy nit bi nga xam tout le temps dafay isolé wu di beru nit ñi naan dafa bëgg tëju dafa kors ni mu du wax xak kenn amul yitte yëgul nit donc euh, commentaire yi day bëri lool ci deram te loolu day nekk loo xam dafay diis ci moom mais du ko wane parce que besoin bi nit ñi di am di jonjoo di duggante moom soxlawul boobu besoin parce que li nekk ci bopp bi wala li muy gis day bëgg tout le temps focaliser wu ci loolu ngir mën ko jàngat ngir mën ko xam parce que xam-xam ko gën a yitteel que relation yi nga xamante ni mooy relation humaine yi même bu dee day am relation humaine mais du nekk loo xam daf ci perte temps am comme yenn nit ñi nga xam dañuy dépendant ci nit ñi wala boobu mënuñu rester sans euh, nekk ak nit ñi moom nag même bu dee day nekk ak nit ñi solitude am daal ci la gis boppam. kon ñu gis li nga xamante ni mooy construction mécanisme euh, type cinq bi bu ñu xee construction mécanisme mooy li nga xam ne tey moo tax nit ki doon ki mu doon kon type cinq bi lan moo tax tey mu yor jikko bi type cinq bi mu nekk xale mën nañu seetlu ni soit dafa dundul rejet mooy dañ dafa sentir ni dañ ko rejeté depuis mu nekk xale muy sentir ni famille bi de bokkuma ci famille bii de man dama étrange ñii dafa mel ni bokkuma ak ñoom bokkuma ak ñoom nuróoma ak ñoom dara Euh, bokk ma ak ñoom xalaat yi bokk ak ñoom gis-gis bokk ma ak ñoom jëmuwaay tellement que day mel ni daal moom kër gi ñëpp a weex moom mooy bet bu ñuul bi ci digg kër gi. et que affaire boobu day nekk loo xam daf koy jaaxal te daf koy travailler parce que tout le temps dañ ko koy reporter mu nekk koo xam ne aussi dafa dund euh, li nga xam ne mooy injustice mooy dañ ko jox trop d'amour maanaam étouffé ko ak amour ba nga xamante ni moom dafay retiré wu day jël ay distance am parce que euh, li ñu koy jox dafa bëri te dafa ëpp te pour moom c'est injuste ñu koy traité di ko. di ko euh, yëkkati par rapport ak ay magam wala ay raqam kon ñu jàpp lii bu baax ci suñu xel mooy type 5 bi soit dafa dund rejet wala dafa dund injustice mooy soit euh, dañ koy rejeté ci famille bi mooy dafay sentir ni euh, bëgguñu ko kenn boolewu ko ci dara kenn yëgalu ko dara kenn du ko dugal ci dara wala mu sentir ni dañ ko dañ ko bombardé ak amour ba nga xamante ni toll na ci niveau boo xamante ni moom pour moom c'est injuste parce que amour bi ñu ko koy jox de moom soxlawu ko du day dem jël li nga xam ne mooy ay distance am ala kulli xaal distance yooyu muy jël tey mooy li nga xam ne mooy forger caractère am parce que sentiment bu mu am la yëg-yëg bu mu am la moo tax tey euh, mécanisme boobu construire wu mu nekk benn mécanisme de défense pour mën a dund ci àddina bi. ko ñu gis ne type 5 bi muy nekk xale xale bu autonome la woon xale boo xam ne tamit comme ni ñu leen ko expliquer rek euh, dafay retiré wu ci famille bi maanaam dafay nekk koo xam ne daal ku ko gis day xam ne kii euh, nit bu retiré wu la. tey bu kër gi doon xar buñ ko laajee danaan xaw ma gisuma dégguma yëguma bien vrai que ki mu toog xam na lépp tous les détails xam na ko muus intelligent attentionné observateur mais noonu la mën a retiré wu opinion du ko joxe du ko saraxe waaw ah, du ko du ko du ko joxe comme ça gratuite parce que tout le temps rek dafa am lu muy seet lu muy gis kon nekk xale bu am attention kon ñu mën a gis ne kon xale la bu solitaire xale la boo xamante ni euh, solitaire am googu yàqal ko dara waajur yi nag mën na leen préoccupé mën nañ topp nan waa sama doom dafay bëgg wéet ah dafay nàngam def naa lii du ñëw ci nit ñi du toog ci nit ñi du nangam fekk xale bi lii la ko yàlla binde yow mënoo wax a wax ba mu mel yow ni nga bëgg tey mën nga wax wax ba mu ñëw xëy na quelque temps mais après day delluwaat ci wiitaayam roqam googu gis nga roqam googu noonu mu nekk di am fa solitude am foofu mooy jàmmam foofu lay yëgee bànneex foofu lay yëgee boppam te foofu lay amee jàmm kon tey euh, boo juree doom mu mel nii li nga ci mën a def pour noppal sa bopp mooy nga accepté ko parce que waajur bee dañuy ñëw naan ma sama doom du génn ci nit ñi sama doom dafa ñeme tëju sama doom dafa ñeme isolé sama doom du wax ak kenn sama doom te fekk na juste que dafa may aptitude rek yoo war a utiliser pour mun a xam exactement sa doom mooy kan euh, boo comprendre personnalité ba pare nga mën a xam ne sa doom macha allah dafa am lu mu soxla te loolu mu soxla tamit foog nga jox ko parce que bind la yàlla moo ko tànn bindee ko noonu kon loolu mënoo ci wax ba nga xamante ne dina daj au contraire wax ju bëri ji mën na ko gën a yokk sax muy gën a tëju kon mën nga teel a seetlu ni en général tey boo amee doom bi nga xamante ni doom type cinq la depuis xale day bëgg liir wala mu nekk xale boo xamante ni day bëgg par exemple Euh, ay desin dessin wante wala bëgg peinture wala bëgg tamit euh, di def ay activités yoo xamante ni daal moom bu koy def foo moom kese mooy foo bëggul sax di foog ay moromam parce que day nekk d'habitude xale boo xam ne xale bu set la xale bu civilisé la xale bu teel a yeewu la bëggul ay foowu bëre ay foowu dóorante ay foowu wante ay foowu déedéet dafa bëgg yaramam dafa bëgg boppam waaw ah, am na foo yoo xam ne doo gis mukk mu di ko fo te dafa teel a respecté boppam dafa judd rek mel ni judd rek nekk kilifa maanaam judd rek mature donc am na ci foo yoo xamante ne lu mu nekk nekk xale doo ko ci mës a fekk même ñu ko yóbbaalee sax day après da koy metti parce bokkul ci moom bu ko defee même buñ ko ci forcé sax day nekk loo xamante ni gënalu ko kon xale la boo xam ne kon mun nañ ne day teel a am intérêt ci wéetaayam googu day am ci lu mu nekk waaw soit mu bu amee ordinateur mu ngi nekk ci ay recherche am wala mu ngi nekk ci ay livre am wala mu nekk ci ay dessin wala mu nekk ci ay activités yoo xamante ne daal daf ko jox épanouissement kon ñu gis ne des fois xale bi nga xam ne type 5 la par exemple mën na jàngal boppam benn branche ba egg ci fenn fii te nit ñi du ñu maanaam du ñu bàyyi xel que ni xale bi évolué na ci branche bi te te moo ko jàngal boppam parce que day dem di di euh, def ay recherche ci internet wala tey jël ay livre ci jamono bi nga xam ne livre moo xewoon wala tey eh, nekk si par exemple mën na bëgg def benn sport di ci entraîner moom kese pour exceller ci euh, par exemple mën na nekk koo xam tamit day bind lu bëri di bind lu bëri di lire di bind ay pensées di xool donc mu ñu gis ci moom kon xale bi nga xamante ni Euh, mën na euh, travail ci benn domaine ba egg ci niveau boo xamante ne te nit jàngalu ko mais moom moo ko jàngal boppam mais def ko ngir siiw mais daf koy def parce que daf koy dundal daf koy nourrir daf koy euh, may mu mu nekk ci ay xalaatam nekk ci mondam parce que tout simplement daf koy procurer bien-être kon mën nañ ne en général ay borom xam-xam la ñuy doon la plupart ci type 5 yi lu dul ñi nga xamante ne société daf leen dévier wala seen parcours de vie dafa dafa tëj côté boobu parce que y a des yi nga xamante ni dañuy jël xale bi maanaam. di ko di ko di ko mm, wàññi ba xale bi dem ba perde ay capacité mais la plus plupart ci type cinq yi tey bu fekkente ni waajur bi teel na comprendre doom teel ko accompagner ay scientifique la ñuy doon ay chercheur ay mën na exceller ci mat wala mu exceller ci côté philosophie wala littérature wala psychologie wala donc mais day exceller ci branche ba nga xamante ni tey day dem ba egg ci foo xamante ni ñu bëri duñ fa egg parce que dafa am patience ba pare dafa am volonté de faire et que tout le temps day topp situation ba mu egg foo xamante ni macha allah foo ko fëgg mu wii la parce que maîtriser na ko donc dañu am maîtrise de leur domaine kon la plupart du temps ay borom xam-xam lañu parce que ay nit yu bëgg xam-xam lañu ay nit yu bëgg jàng lañu mën nañuy jàng ba am 100 ans ñoom dérangé wu leen parce que pour ñoom àddina bi lépp da nga ko war a jàng ñoom mënuñu dégg mënuñu tëb tëb rek eh, nga laaj leen dara ci benn argument rek ñu tontu la déedéet bëgg réfléchir def ay recherche xool luñ lay tontu est-ce que lu wóor la est-ce que donc du ñu waxee foog naa yaakaar naa nangam naa déedéet lépp lu ñu wax dañ ci am lu leer kon mu ñu nekk ay nit yoo xam ne loolu lu ñu soxla la. kon ñoom dañu soxla comprendre àddina bi soxla euh, xam ci àddina bi loo xam ne dina tax ñu mën a dund ci àddina bi parce que sans ñu comprendre ko rek duñ mën a dund bu neex. kon mën nga seetlu ni tip 5 bi nit la bu froid maanaam nit la boo xam d'habitude boo nekkee moom doo sentir ay émotion am bëriwul reetaan bëriwul ay kekekeke bariwul ay. kaf yu bëri donc nit la bu sérieux comme ni leen ko waxee nit la boo xam ne day judd rek nekk kilifa mature nekk nit boo xamante ni c'est une personne très respectueuse même nit bu ko gisee doo xam fooy doo ko mën a yab parce que nit même bu nekkee xale euh, ay waajuram sax dañ koy respecté parce que dafay imposer la respect depuis bas âge ndax waxam bëriwul du dugg ci lu yoram newul dugg ci leen donc du nekk ci loo xam ne daal dañ koy blâmer en général mooy doom bi nga xam ne dañ kii daal daf ma noppal parce que dafay xam ko waxul c'est une personne tellement intelligente ba bu observer famille bi gis waajur yi lu ñuy bañ lu ñu bëgg rek moom day fexe ba kenn du ko ca fekk ba di ko euh, maanaam euh, di ko def ay reproche kon mën nañ ne d'habitude dafay couper boppam ci ay ressentiment wam kon du du faral di bëgg di yëg ay émotion am da koy faral di refouler xëy na après bu passé ba def ay fan mu di ko xalaataat xëy na boobu émotion yi mën na yéeg mën na am tristesse mun na am angoisse mën na ko naqarlu mën na ko jooy mais du nekk ci saa si d'habitude parce que moom il faut que mu rationaliser il faut que mu xalaat il faut mu xool est-ce que nii nii ma ko xalaatee nii la demee est-ce que manqué wul aspect bi est-ce que lii donc dina ko calculer ba mu mot sëkk ba mu xool ndax lii <laughs> lu jara euh, solution la wala lu jara xalaat l wala lu jara jooy la ou pas donc mën nañ ne kon c'est une personne boo xamante ne li muy xalaat dafa bari kon bopp bi day daw cent kilomètres à l'heure parce que centre mental la kon mën nañ ne type cinq bi en général waxtaanam jëflanteem boo ko gisee mu bëri wax rek day fekk ni ca la mu nekk ca la nga xam ne moo ko intérêt ca loolu nga ko laaj tey boo ko laajee ci domaine boo xam ne xam na ko neex na ko et que macha allah maîtriser na ko def kiy wax ba nga ne ah kii ndekete noppiwul di dafa bëri wax fekk da déedéet da nga koo laaj ca la mu xam ca la mu mun a wax da cay wax te mën na ci bëri wax. mais bu fekkente ne tey da ko am na mbir yoo xam ne yitteelu ko nga bëgg ko ci indil débat du ca wax mën nga toog di wax mu lay xool nga wax ba pare du la ne wow na du la ne tooy na du la ne waaw du la ne déet du la ne uuhu mën nga wax ne ko yoo laay waxal mu ne la ah, dégg naa la. ngay xaar réponse du la mës a tontu parce que li ngay wax intéressé ko bëgg ci joxe benn opinion te moom amul keer sa toog ne zëmm di la xool jàkkaarloo yu mel ni miir bi nit ñi nag jàppee ko naan kii ni mu dofee xoolal ma li wax moom du la faale fekk na moo la gën a woy

perte loo son temps wala di ko wax loolu mu bëgg te wax kon ceci dit que nit la boo xamante ni moom en général kuy sori ay bàkkaar la wala ay wax ci jàmbur wala wax ci yu doon newul kon ñu xam ni euh, selon type cinq yi ni ñu uutee noonu la seen ay int domaine d'intérêt di uutee dans le sens que am na type 5 yoo xam ni ñoom dañu bëgg er-, exceller ci jàngale ñiy exceller ci euh, matière scientifique yi ñiy exceller ci ci côté médical bi ñiy exceller ci côté mën nañ ne euh, créatif bi maanaam côté yi nga xamante ni ay liggéey manuel la par exemple mën nga gis tey type 5 boo xam ne musicien la et que macha allah daf ci exceller mën nga gis aussi type boo xamante ni tey euh, par exemple styliste la te ci exceller nga gis koo xam ne scientifique la def ci exceller mais domaine yi ñuy nekk moom en général macha allah dañ ciy sori te dañ ciy def li nga xam ne mooy li mu laaj. mécanisme euh, type cinq mën nañ bu ñu socialiser woo ci milieu yi nga xam ne milieu yu mbooloo daje par exemple yu mel ni école bi. wala liggéeyukaay dinañ faral def lu ñu war a def pour euh, mm, dugganteeg nit ñi bokk ak nit ñi. ndax pour moom lu am importance tamit bu nekkee si milieu yooyu mu def li milieu bi laaj waaye nag euh, def bi mu koy jëf daf koy maanaam daf koy jëlal énergie bu bëri parce que bokkul ci moom donc day fournir bokk d'efforts pour mun a nekk si euh, mbooloo nekk foo xamante ne dafa am ay nit. la plupart du temps type 5 bi. su fekkente ni dafa nekk ak ci ay nit du sentir boppam daal day mel ni euh, nekkul moom maanaam elle n'est pas elle mais une fois que tey mu isolé wu day sentir boppam sentir ni fii mm, elle est naturelle amul leen loo xamante ni daf koy euh, def pour neex kenn parce que day mel ni mu war a mel te kenn ko jugé. ba tey type 5 bi aussi mën nañ gis ni tamit nit la boo xamante ni mën na sentir boppam su fekkente ni nekk nag ay xarit yu mu miin ay nit yoo xam ne miin nañ ko xam nañ ko te wóolu na leen bu boobaa dina ubbeeku nekk nit bu agréable et au cas contraire euh, nit la boo xamante ni day tëju ba nga xamante ni ñëpp dañ naan kii kenn du ko xamal dara parce que nit la bu noppi ku mu bëggul euh, nga xamal ko doo ko xamal. kon mën nañu wax ni type 5 yi la plupart bu ñuy communiquer bind moo leen di gënal wax kon boo gisee nit ñoom bindal la message yu deux mètres xamal ni en général type 5 la. parce que ñoom bind message ci li ñu gën a nekk à l'aise di wax parce que suñuy wax wax yi mën na jaxasoo seen bopp wala ñu jàpp ni li ñu wax du leer wala li ñu wax nit ñi duñ ko comprendre. fekk na déedéet euh, loolu seen perception la rek donc ce sont des personnes qui sont plus à l'aise à l'écrit que à l'oral kon mën nañ ne type cinq bi dafa soxla liggéey ci boppam liggéey bu bëri am développement personnel bu taxaw liggéey travail def bu colossal pour mën a euh, am comportement bu société bi di nangu parce que société bi dañu bëgg nit bu ubbeeku nit bu social nit bu agréable et te loolu il faut mu def liggéey bu extraordinaire pour mun ko mel ku ko mën a mel la. ak tamit mën a waxtaan ubbeeku wax li mu xalaat loolu tamit day laaj travail bu colossal pour mu mën ko am parce que tamit manque de confiance daf koy faral di sonal pas tout le temps mais d'habitude lu bari ci ñoom dañ koy am yenn ragal-ragal yi ak ragal ku leen rejeté parce que comme ni ñu ko waxee rek euh, type 5 bi nga xamante dafa dund rejet day ragal wax opinion am ñu rejeté dund injustice day ragal wax opinion am ñu subeloo ko injustice kon mën nañu gis ñenn ci type 5 yi euh, di liggéey ci ay liggéey ci mel ni liggéey télévision wala liggéey am mbooloo mais loolu ay exception la parce que c'est très trop rare même kon ñu gis ne en général type 5 yi ay nit la ñi nga xamante ni euh, ay mode du sonalu leen ay li moo xew euh, tey par exemple nit kuy defar këram ñu naan li moo xew meuble bi moo xew ñoom loolu intéressé wu leen yëre bi moo xew loolu intéressé wu leen ay nit lañ yoo xam ne d'habitude ay nit yu euh, sonnuñu ci àddina daal ay superficialité yenn bëgg buzz yi wala yenn bëgg farfelu yi déedéet même bu ñuy solu solu bu discret la ñuy solu solu bu neutre d'habitude euh, seen entourage sax dañ leen di tooñ naa leen mënoo sañse wala xamoo sañse wala moom mënul sañse de day jënd yére bu cher waaye mënu ko sol de nu mu koy solee nangam saagam et que parce que moom loolu attiré wu ko gis ci ni pour moom ay futilité la du coup muy góor muy jigéen mën nañu prendre apparence de ne buñ solo da nga naan waaw déedéet mën nañu sol mais ay nit lañu yoo xamante ni daal mode moom lii moo xew wala lii moo xew intéressé wu leen kon mën nañ ne ñoom ut ay spécialité ci connaissance ci xam-xam géeju ci sonn ci moo leen gënal foofu di dépense seen xaalis ci ay sañseeg lii moo xew ak lii moo xewi kon ñu gis ni type 5 bi retrait bi muy retrait wu di exceller ci domaine am dem ba nekk ci maître loolu dafay nekk loo xam ne macha allah dina tax mu am ay découverte yu bees tey am na ci type 5 yu bëri ku ci mel ne Einstein nga xamante ni type cinq lay tuut am na aussi d'autres scientifiques euh, mais da gis ni tey euh, am na ci yenn découverte yi ñuy def day nekk découverte yoo xamante ni Euh, kenn mosu ko woon gis du coup une fois que ñu mettre ko sur la table ñu bëri mën nañ ko remettre en cause mën nañ leen critiquer c'est seulement avec le temps que nit ñi ci la ñu commencé di intégrer li nga xamante ni mooy seen ay ñu gis ni type 5 yi la fait que ñuy euh, focaliser wu des fois ci yenn domaine intérêt yi nga xamante ni uniquement bu ñu koy def sa pas pour découvrir quelque chose dañ koy def uniquement pour am épanouissement pour se sentir bien avec eux mais mën nañ ci dem aussi ba am ci ay mbir yu macha allah léegi nag am benn danger boo xamante ne mooy tey nit ki mën na jéem a exceller ci domaine boo xamante ni amul intérêt amalul kenn njëriñ amalu ko moom njëriñ mais aussi domaine la boo xamante ni moom daal bëgg na ko te ma nga ca te kenn du ko ca jëlee. waaw léegi nag euh, foofu xëy na dañ koy wax rek ne jéem a travailler sur elle-même te lépp luy di perte temps mu nekk loo xam daf koy amal njëriñ ba tey aussi type 5 yi seen côté négatif ñu am benn problème boo xamante ni mooy léeg-léeg mën nañu am tendance compliquer des choses tellement simples mooy euh, jafeel ay mbir yoo xamante ni lu basique la lu simple la di ko xalaat di ko togg di ko wëlbati di ko tourné waat di ko càmbar ñu nekk aussi ay nit yoo xam ne mën nañu am tendance euh, li nga xamante ni mooy euh, am surcharge parce que mën nañu am ay pensée arborescente nga xamante ni seen xalaat yi day taw dañuy xalaat du bëri bëri bëri mu den jox bopp yu metti anxiété angoisse des fois ñu duñu a nelaw guddi am ay migraine tout ça day nekk loo xamante ni tey le fait que mbir ñu yemale ko fa mais mën nañ ko jël ko togg di ko xalaat ko taawi di ko togg di ko xalaat di ko taawi mi egg foo xamante ni ñu gisee ko noo xamante ni tey <clears throat> tollul woon foofu mais ñoom ñoo ko fa yóbbu ba nga xam ne mën nañ ko jàppal nit ki parce que tamit ay nit la ñoo xamante ni d'habitude mën parce que tey mën nañ togg benn situation benn événement nit def leen dara au début euh, ñu bàyyi ko noonu après ñu di ci xalaat naan waaw est-ce que daf ma xeeb daf ma yeb lii moo tax ma xoolee ma nii moo tax mu defee ma nii moo tax toog ko ba affaire bi dem ba nga xam ne tey mën na ko mettre en froid avec la personne mu jël ay distance totalement te fekk nit ki xamu ko def te loolu c'est très dangereux kon ñu gis type 5 bi aussi côté négatif yi mooy nit la boo xamante ni tey le fait que muy chercher euh, indépendance ak autonomie le fait que bëggul dépendre ci kenn day tax dafay euh, rejeter ses besoins maanaam ay besoins yu mu soxla ay soxlaam ay mbir yoo xamante ni nit daf koy soxla yitu mun na ko ñàkkal fayda tey lu ci mel ni santé mën na am lu koy metti mu di ko fënatal di ko remettre à lendemain di ko suuxaale di jël ay garab di kii naan non amul problème dem ba nga xamante ni dina egg foo xamante ni da koy ëpp loxo. te loolu tamit dafa nekk loo xam ne lu la parce que type 5 bi tey euh, mën na nekk même jigéen nekk ci sëy di dund yu grave mais mu koy minimiser di ko ñàkkal fayda di ut di xalaat di ut ay solution le fait bu bëri xalaat tey mën na ko yóbbu tey bu mu am ay yoo xamante ne ay trouble psychiatrique yu grave parce que le fait que bopp bi di togg suba ngoon guddeeg bëccëg mën na ko yóbbu ci ay schéma yoo xamante ne c'est très dangereux pour sa propre santé parce que le fait que aussi muy ñàkkal fayda des fois yenn situation yi que ni xëy na di remettre faute bi ci boppam pour jéem a pour pourquoi di comment loolu mën na ko dugal ci benn genre labyrinthe boo xamante ni du am porte boo xam ne fa lay jaar. le fait que aussi euh, mu ragal am dépendance ci mbir yi day tax muy privé boppam des fois. Euh, ci yenn euh, bànneex yi wala yenn neex-neexu àdduna yi kon ceci dit que nit la boo xamante ni dafa dëddu àdduna parce que buggul dépendre si ay mbir yoo xam ne ay matériel wala ay mbir yoo xam tey daf koy euh, après bu ko bëggaatee du ko mën a am wala daf koy jafe du bëgg di teg ci loolu bonheuram wala di ci teg dundam parce que day naan lii estable su ma tegee sama bonheur wala sama dund bis bu ko amatul lan laay def du ko buggul leen di ko tënk daal waaw dafa bëgg daal dund dund bu oyof dund bu soft dund boo xam ne Euh, le minimum le minimum ba nga xam ni le minimum da koy am dans tous les cas kon ñu gis ni par exemple ñi nga xam ne ñooy perfectionniste yi nga xam ne ñoom dañuy euh, rejeter li nga xam ne tey mooy bànneex wala rejeter li nga xam ne mooy kontante duñ ko bëgg a yëg tey ki nga xamante ni tey mooy euh, type 5 bi moom problème am mooy day laajte des fois naan man lu tax du ma kontaan lu tax mënuma kontaan comme nii ñi parce que tey même buy kontaan day nekk loo xam ne du ko bëgg a yiir du coup day am problème pour euh, accepté ko pour mu ñëw même colère aussi la plupart du temps du nit buy exposer colère parce que moom dafa am benn répugnance ci gis nit muy exposer colère am euh, bis bu demee nag ba exposer colère am da ngay gis ni ku mën a mer la waaw merkat dëgg la mais meram dafa jafee gis daanaka bu fekkente ne normal nga rek mën nga dëkk moom santaakaat dimanche da nga naan kii xanaa du mer. parce que nit la bu mën a régler boppam mais nag bis bu meree moom ah nga xam ni mer na. kon ba tey ñu gis type 5 bi que ni day fexe def le tout possible ba nga xam nit ñi nekk maanaam mm, société bi nit ñi duñ ko soxla. tey même bu fekkente ni tey mu ngi liggéey ci ay mbooloo wala mu ngi nekk par exemple professeur wala mu ngi nekk par exemple euh, chercheur wala mu ngi nekk koo xamante ni nit ñi dañ ko war soxla soxla xam-xamam moom même buy joxe xam-xamam da koy joxe d'une manière boo xam ne ay tokk-tokk lay joxe maanaam nekkul nit ku ku généré ci xam-xam parce que en général nit la ko xam nit ku nay la maanaam buggul euh, jox xam-xamam sax ñu ko soxlawul tey bu fekkente ne gis na ni yow mii li muy joxe soxlawoo ko du la ko jox <laughs> du ci yàq tempsam bu fekkente ni tamit gis na ni li muy joxe amalu la njëriñ du la ko jox parce que day laajte lu tax mu lay jox loo xam ne amalu la njëriñ. kon nit la boo xam ne aussi euh, dina def le tout ba nga xam ne daal nit ñi duñ koo soxla di koy soxla tout le temps pour di ko sonal wala di ko fàtte air parce que moom liberté moo ko gënal lu mun a am ci àddina. kon ñu gis ni type 5 bi le fait que euh, bëggul leen lu ko tënk ba nga xam ne day daw bànneex yi di daw euh, lépp loo xamante ni daal ay mbiru comme nit ñi ni ñuy dawee ci yére daal tabax kër def ay choses yu grandiose moom yooyu yëpp da koy sori. mais loolu euh, problème bi mooy mën na euh, egg foo xamante ni ci yenn type 5 yi pas ñëpp mais ci yenn type 5 mën na ko mën na egg foo xamante ni tey euh, nit ki du dund maanaam du dund parce que tey am na type yoo xam ne dañu nay maanaam nay nay dans le vrai sens du terme la plupart type 5 yi ay nit la ñu xam dañu nay buñ nee nay nag mooy ay nit yu économe la ñu mm, donc joxe juste le juste nécessaire tey boo leen laajee boo leen ñaanee xaalis par exemple dañuy xool xaalis bi loo koy doyee bu ñu gisul besoin bi duñ la jox Euh, boo leen ñaanee dara par exemple xëy na nga soxla woon loo xamante ni bëggoon ñu jox la lu bëri ñoom dañ lay jox juste le minimum nécessaire euh, lépp lu ñu lay jox tamit c'est ça duñ la jox loo xamante ni après dañu naan parce que ñoom pour ñoom àddina bi nit ñi nekk pour di yàq di pacar pacari di sànni di waneewu déedéet le juste minimum nécessaire pour nit ñi dund ñoom xam naa ni moom bu ñu gouverner woon le monde ñëpp dinañ lekk ñëpp dinañ naan xiif du am kenn du dee te ñëpp dinañ faju parce que ñoom dañuy def juste le minimum nécessaire donc nekk léegi nag euh, am na ci yenn personnalité yi nga xam ne dañu mën a yàq personnalité yu ci mel ni altruiste yi mel ni tib witti bi nga xam ne ñoom seen lépp dafa extravagant bu ñu gisee type 5 dañ naan ki ni mu nayee ki ni mu ngottee ki ni mu nangamee fekk déedéet type 5 bi nag wax dëgg yàlla moom moo normal parce que moom day def juste li nga xamante ni mooy li jaadu waa ñoom nag dañuy def loo xamante ni day ëpp ba nga xam ne après tamit mën na génn dans les normes. kon ñu gis ne euh, type 5 yi en général seen anxiété day nekk loo xamante ni léeg-léeg mën na nekk lu leen di neex parce que mën na leen yóbbu ci ñu xam yenn aspect yi par exemple am na type 5 yoo xamante ni mën nañu ragal par exemple ragal muus wala ñu ragal euh, jinax wala ñu ragal mbóot loolu dina leen yóbbu ñu dem di def ay recherche ci muus boobu ba xam muus lan lay bëgg lan lay bañ lan mooy ay problème am lan mooy lii lan mooy feebaram lan mooy ay dangem bu dee jinax tamit la même chose dinañ xool lan mooy donc pour am ci xam-xam doom ci domaine boo xamante ni d'habitude base bi mooy lii dañ ko ragal mais bëgg a comprendre lu tax ñu ragal ko moo tax dinañ dem ba cerner lépp li nga xam ne rek moo jëm ci loolu kon problème bi mooy da ngay gis ne en ragalee daal da sori mais ñoom bu ñu ragalee daal dafa mel dañuy fusionné wu ñu ragal te loolu problème lay indi parce que après day nekk loo xamante ni c'est comme si c'était dama ko ragal mais en même temps dama ci am ut intérêt dama ciy xool di ko gëstu di ci comme dama ci am intérêt te normalement nit bu ragalee dara da koy rek sori en général gis type cinq yi par exemple xale boo xamante ni euh, waajuram dafa génn àddina ci cancer par exemple xale boobu tey bu dee type 5 la le fait que cancer rey yaayam wala papaam dina jàng cancer moomu ba nekk ci spécialiste ba nekk ci euh, macha allah euh, chercheur ba nekk ci scientifique pour dominer cancer boobu mu ne ko ba utal ko garab. parce que ñoom lépp li nga xam ne dañ koy ragal pour ñoom war nañu xool naka lañ koy domtee naka lañ koy dévier naka lañ koy teggee ba nga xam ne du gaañ donc ñoom loolu dañ ko soxla kon gis ngeen ñoom lu ñu ragal duñ ko daw mais dañ koy affronter ci yenn type 5 yi pour xool naka lañ koy euh, encercler war ko nomba kon ñu gis ni ci type cinq yi ni mu amee ñu foie noonu la amee ñu hypersensible type 5 yi hypersensible hypersensible mais du tee dañ koy nëbb kon ba tey ñu gis aussi type 5 yi nga xamante ni tey euh, dañu am froideur mais même bu ñu yëg émotion dañuy jéem a chercher à comprendre colère bi may yëg lu tax mu ko yëg lu tax may metti lu tax mu am guub yi lu tax mel nii donc cherche à comprendre cette colère là émotion boobu lu tax mu am ressenti bi kon ci loolu ci la ñuy gisee ni en général type 5 yi euh, même bu leen problème dalee ci saa si ci analyse la ñu nekk après rediffusion la ñu mën maanaam après quelque temps ci la ñuy commencé di sentir réellement que ni lii kat lii la lii la lii la émotion yi commencé nag di wàcc commencé di leen di envahir parce que au moment bi nga xam ne ñu ngi doon xuloo ñu ngi doon nekk di xalaat xuloo bi di xool di analyser après xuloo bi nag ci la ñuy soog a yëg seen ay émotion comme nit mën na leen defal par exemple surprise euh, ñu nekk fa di analyser surprise bi di xool di ko jàngat di ko lii te duñu am benn émotion nit ki defal leen benn surprise affaire bi ñoom ñu mel ni glace euh, après nag bu ñu xoolee di analyser émotion yi commencé ñoo ñu commencé kontaan te loolu day nekk loo xam dañ ko war a travailler parce que des fois nit dina defal surprise bëgg gis say émotion nga wan ko froideur nit ki mën na ne kii kat li ma ko defal neexu ko wala amu ci intérêt kon ñu gis euh, bi nga xamante ni moom la ñuy wax Claudio Naranjo mu ngi wax ni euh, li nga xamante ni mooy seen point négatif bi gën a remarquable mooy nay bi ñu doon souligner sànq l'avarice donc nay boobu ak détachement ci àddina détaché wu ci nit détaché wu ci lépp li nga xamante ni maanaam ñoom bàyyi sonalu leen te gaaw nañ ci lool te mën nañ ko lool tamit. ndaxte dañu gis ni NAA type 5 day économiser boppam énergie da koy économiser da ko jox n'importe quoi te aussi xaarul dara ci nit ñi nag waaw lu nga xaar ci nit ñi wax dëgg yàlla bëriwul sonalul kenn te kenn du ko sonal. te ku ragal ex monde extérieur bi vide énergie am la maanaam dafa ragal lool mbooloo moom daal moom comme ni ñu leen ko waxee bu nee ñàkk mooy lu ko gënal parce que xam na ni une fois que mu am contact ak mbooloo énergie yëpp dafay dem batterie am day recharge day déchargé wu. donc le fait que aussi dafay refuser maanaam dafay bañ lépp li nga xam ne mooy ay xew-xew li ala li moo xew ala mode li moo nekk ala mode li moo xew li mooy buzz li mooy nangam. yooyu daf koy rejeté parce que amul ko intérêt donc bëggul kenn di ko sonal ci yooyu nga xamante ne amul benn sens. comme ni ñu ko waxee woon cinq bi même bu nekkee nit boo xam ne euh, nit bu am xam-xam la di jàngale et tout wala di partager xam-xamam tout le temps dina def ba nga xamante ne xam-xamam ñi koy jëriñoo ko soxla ñoo koy jëriñoo parce ko comprendre du ñëpp ñoo a am accès koy joxee tamit ñëpp ñoo ko mën a jël kon ay nit lañ xam-xam ay ñi nga xamante ni xam-xam moom dañ ci nay même at mën nga dëkk ak ñoom ci benn kër fanaan ak ñoom ci benn nekk te doo leen xamal dara kon sa sidikatoon type 5 mën nga sëy moom mu nekk sa jëkkër te doo ko xamal dara ngay rey sa bopp te moom parewul pour nga xamal ko parce que lu muy xam ne moom bu bëgg bu xamee ni yow da nga ko bëgg a xamal <laughs> daf lay jaay ju saay saay moom day xam ne xel que da ko bëgg a xamal mais doo ko xamal parce que moo koy tay da bàyyi ci biir noonu tamit nga gisee type 5 boo xamante tey day gis ne xëy na da nga désintéressé wu ci ay mbiram et que euh, bu fekkente ni gis na ni yow nit bu sage nga nit bu honnête nga nit bu téye sa làmmiñ nga aussi bu téye sa bopp nga bu la wóoloo rek dina wax ak yow mais bu gisul l'utilité du wax ak yow te lu la concerné wul nga di ko laaj même bu xamee ne lii da ko bëgg a xam mais concerné wul la fait ko concerné wul du la ko wax kon gis nga c'est une personne boo xam ne vraiment euh, nit la bu am solo macha allah. kon ñu gis ni daal li nga xamante ni mooy seen problème daal mooy euh, leeralal nit ñi partager xam-xam leeral ko joxe ko ba mu sedd wecc ñoom dañuy ragal tout le temps euh, bañ a am ay ressources maanaam joxe lépp ba duñ dese dara Euh, tout le temps loolu dañ koy ragal te tout le temps day nekk loo xamante ne aspect boo xam daal xam-xam moom pour ñoom ay miet lañ la war a jox li ci des yaa war a rey sa bopp dem xam ko comme ñoom li ñu seen bopp xam ko kon ñoom pour ñoom euh, lépp kenn du ko joxe daal. kon type 5 bi une fois que mu def ay travail sur elle-même dina mën a comprendre ni le fait que mu joxe xam-xamam du ko jeexal maanaam du ko vider du ko appauvrir. le fait que aussi mu partager xam-xamam njëriñ lay doon ci nit ñi nga xam ne woon nañ ko ak képp koo xam ne war na ko mën a jariñ te loolu aussi day nekk loo xam ne ragal-ragal boo xam ne une fois que mu am développement personnel lu bëri dina ko mën a faj. beneen bi mooy type 5 bi aussi li ñu koy wax mooy nit ki tamit boo bëggee recevoir il faut que ngay joxe ndax tey mënoo xaar ci nit ñi ñu lay jox te yow doo joxe. kon euh, lépp li nga xam ne rek mooy la loi de la compensation mooy pour nga mën a am ñuy récompenser la il faut que savoir donner. et que une fois que nga mën a joxe rek di nga mën a recevoir tout ce que tu recevoir. kon type 5 ba tey mu xam ni interaction ak nit ñi surtout nit ñi nga xamante ni ñu am ñu intéressant lañu nit ñu leen mën a dooleel seen domaine loolu mën na leen dimbali mën na leen euh, nourrir mën na leen jox aussi dooleel leen ci seen dund. kon ñu gis type 5 bi tey bu demee ba désintégré wu bu demee ba egg ci âge maturité day jël li nga xamante ni mooy aspect leader ci mën a partager mën a joxe que ça muy temps muy xam-xamam ragal. ndax day xam ne day am utilité waaw day nekk aussi nit boo xamante ni aussi dafay am benn détermination pour mën a mener euh, beaucoup de choses yoo xamante ni macha allah dafay euh, jëriñ humanité bi kon type 5 bi dañ ko wax ne bu mu ragal désintégré wu bu mu ragal euh, travail sur elle-même parce que c'est une personne qui peut devenir très très utile ci àddina bi jëriñ nit ñi waaw ah, kon ñu gis ni rek euh, type énéagramme yi ci yëpp intéressant une fois que ñu daal di acquérir li nga xam ne mooy maturité sagesse désintégré wu ci yeneen angle yi nga xam ne mooy seen angle de pouvoir euh, dinañ mën a euh, mel ki nga xamante ni mooy ki ñu bëgg a doon kon l'impossible n'existe pas kon lii rek lañ indi loon tey ci énéagramme bi di leen wax bu leen fàtte ngeen partagé ko daal di koy eh, aimer et aussi képp koo xamante ni rek njortu ngeen ni type 5 la sànni leen ko vidéo bi rek boobaa gëm naa dina leen si gërëm bu baax a baax ko ñu ngi leen di wax salaamaaleykum wa rahmatulah ba beneen incha allah ñu indi leen seen prochaine type muy type 7 lépp muy type 6 du moins kon euh, loyaliste.